nga nekk ñi nga xamantene ñom ñoo ngank football bi Thiès euh, équipe nationale ñoo fi pour une première ban sentiment nga d'abord nga euh fierté déjà que Thiès waa yi mun a équipe nationale euh lu ndon xaar bu yag la ñew na tay et donc on félicite toutes les autorités yi nga xamni japp nañ ci pour mu ñew au premier rang desquels le ministre des sports la fédération et au niveau local toutes les autorités le gouverneur mais avant le préfet le chef de service régional tous les services de Thiès se sont mobilisés comme un seul homme pour que Limona déjà effervescence déjà à l'entraînement le stade est déjà plein ça veut dire que Thiessois yi beaucoup euh, de joueurs seen stars te tey loolu donc satisfaction le bourrée pour nous pour en tant que Thiessois mais en tant que sénégalais qui retrouve son équipe nationale. en tant que Thiessois match bi samedi 4 euh, quatre jours moitié ci des euh, na ngeen nan ngeen koy comme déjà nous avons ko defee entraînement bi a l'habitude d'organiser des compétitions parce que jouer une la Coupe d'Afrique à Hambourg.

defe naa ni bois Dakar deful ndànk ak yeneen région yi bu ñu ñëwee dinañ fekk stade bi fees mais donc euh, pour pour wax euh, plus sérieusement qu'effectivement ñu ngi koy préparer avec euh, sérieux Thiès waay yëpp gëm nañ ni tey war nañu génn ni ànd ak seen équipe nationale wan Sénégal que ni ñoom aussi bëgg nañu équipe nationale bi li ñu bëgg mooy résultat yi parce que Thiès c'est une ville de football c'est une ville de sport et tey jii ñëpp ànd nañoo équipe nationale bi pour que nous les meilleurs résultats euh, en Afrique